lii nag wane ni jafe-jafe ci wàllu kaaraange moom ba tey mi ngi wéy di am fi nga xamante ni moom moo di ci goxu wàllu yi rawatina nag fi nga xamante ni moom moo di Ross Béthio ndax nag bu fekkente ni ku ñaar ñooñee nga xamante ni ñoo di ay Samba Boy mujj nañu sax jël moto ba daal di daw ak moom te ba tey jii nii kenn gisagu leen laaj bi samp nag moom moo di fu ñu jëm ak mbir yu ni mel. mu ngeen dellu si waatoon tuuti si situation bi sa diggante ak ki nga xamante ne moo la agréé te waxaat ni tuuti rek nan la demee. yàlla si arrêt bi mu yóbbu ma. yóbbu ko si kii premier virage dana ma taxaw. premier virage mooy premier virage boobu. ñu mhm. am na lu ñu jéem bu may ci premier virage. ou la tëbb ak moo di Jésus moom. da ngeen dem da nga fi ba si village ci leen bi premier village ci leen bi mu la taxawal. bi nga taxawee. Ya? mu doon paax. Mhm. mu mu. paax la mu doon paax ñu ñoo ah comme am keneen fu mu àndaloon. kon bi nga taxawee ki nga bi mu la taxawal bi ngeen la wax. wax. mu jëm fekkee ah. kan nañ ki ñëw doon tànk gannaaw ñun kon ñoom ñaar ñëpp dañu yoroon kenn ku si nekk jam na la paaka kii keneen ki moom jëm paaka fii la fii ñu lay jam paaka dafa la laaj moto bi wala dafa tourné rek jam la paaka laaj une moto bi sax ay an ay an réer la ay kii si lu tunde ay kër kati une heure une heure si bëccëg fan nga ko jëlee arrive ci arène bi ci station arab yi mën naa boo yëpp ñoo nekkoon ma ni arab yi nekk seen stade foofu nga ko jëlee mais ba mu lay wax yóbbu ma waxu la fan ngay jëm waaw moom gisee waaw ko xamee jëmm ji tey boo doon wax nit dafa nu mel dafa gàtt dafa rëy dafa tuuti nu mel gàtt mu njool dafa yam dafa yam am na kàttan waaw ñun na wala xees na yus ñun ñaar ñoom ñaar yi kon ñaar yi ñuul lañ. jot nga xeexal ñoom bu baax. xeexal na keneen ki keneen ki moo ma jàpp. keneen ki nga xeexal mais keneen ki moo daal moom moo wàññi sa doole. Hmm. léegi ana moto hmm? ah, kon ñoom dañu jël moto bi dama moom. waaw. am na ñu la bu bu may génn ci benn gaa ci la laa fekk ko boo maay tiitam bi kenn deret mhm. loolu la lunu tamit amul bi bi ndax yaa ngi koy gis waaw maa koy ni ñoom ñoo ànd yéeg si moto bi waaw keneen kii danga ko dabi wutuwaat la mhm. mais moto bi bi ñu yóbbu ñoom ñaar ñoo ànd yéeg waaw boobu suma xa dama xawul dara bi jeex mi ma téye loxo bi ma demal ba ma jël tali bi. Mm. wala gis booyam ki ku ñëw man seen moto bi. Mm. Ah, mm. yow bi ñu jëlee moto bi nun ba nun jaaree. yoonu kaw tali bi lañ jaar wala. àll yoon àll. waaw ah, yoonu àll bi. jaar si suuf. waaw ah, boobu naa ngi yu yi. moto bi yàgg moom wala dafa am ku la doon liggéey loolu. dafa am ku ñu jox waaw ko doon liggéeyal. lii nag wane ni jafe-jafe ci wàllu kaaraange moom ba tey mi ngi wéy di am fi nga xamante ni moom moo di ci goxu wàllu yi rawatina nag fi nga xamante ni moom moo di Ross Béthio ndax nag bu fekkente ni ku ñaar ñooñee nga xamante ni ñoo di ay Samba booy mujj nañu sax jël moto ba daal di daw ak moom te ba tey jii nii kenn gisagu leen laaj bi samp nag moom moo di fu ñu jëm ak mbir yu ni mel.